asalaamaaleykum mbokk internetu jàmm ji info maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di am teg bànneex janoog yéen saa su nekk rek comme ni ma koy waxee waaye laata ñuy sori damay jaajëfal sama cadreur Cheikhou Dramé euh, Cheikh nag tey dañoo ñëw seet si nag docteur ñëw seet si ko ci weneen wàll ndax dañu gis ni euh, poussière bi euh, temps yi dafa jug lool dafa bari te mun naa ni sénégalais yi ñu ci wér bariwunu ñëpp feebar rek laay wax donc ma war a waxtaan ak Edmé Diatta mu war a waxtaan nag moom it Euh, ci wàllu poussière bi euh, docteur maa ngi lay ziar. lay nuyu Aïdi Aïdi Diop. waaw maa ngi sant internautes yi. c'est Omar Dramé maa leen di nuyu. maa mhm. leen di ziar. Mhm. d'accord euh, ci li ñuy waxtaan rek mooy poussière bi dañu gis ni poussière bi jamono yi dafa bari lool te sénégalais yi comme ni ma ko waxee sànq ñu ci bëri wéruñu asthme yi sinusite yi tey dañu gis ni sax poussière yi chaque année moment yi lay ñëw lan moo tax. ok euh, poussière bi c'est vrai que temps yi nii dafa bëri. Mhm. bari na y a de presque ay semaines déjà mën na ay semaines asofare yi ñëw mais temps yi nii moom depuis démb bu barki démb ba léegi. Mhm. poussière bi continuellement continuellement boo ñu fii nii. Mhm. donc loolu presque chaque année c' est c' est saisonnier c' est bon mënuma ne carrément c' est saisonnier mais loolu à chaque fois. Mhm. c' la même période on a constaté que c' la même période aussi. Mhm. donc lan euh, nga jàpp ni moo euh, tout le temps même même même mois yi nii rek lay ñëw. climat bi la. ci climat bi maintenant climat bi ça mun na euh, su changer les choses changent maintenant poussière bi vent bi tamit vent bi mooy apporter poussière bi donc si si si daaw tamit même chose ren jii nii même chose. Mhm. lu ñu constaté la maintenant lu tax lu waral loolu loolu xam naa météo <laughs> ñu def météo. ñooñu ñëpp surtout <laughs> euh, euh, fi wér euh, bari presque parce que asthmatique yaa ngi fi ñi nga xamante ni dañoo amee chirurgie est ce que mën naa xam ndax ñooñu poussière bi dina leen arrangé. waaw poussière bi de balaa may commencé arrangé wu ñu ñëpp. arrangé wu ñëpp arrangé wu kenn. Mm-hmm. loolu ça c'est le début arrangé wu kenn. Mm-hmm. maintenant am na ñoo xam te ne euh, surtout xale yi ak mag yi ñoo xam ne xale yi ak mag yi tamit ñooñu lay mm-hmm. gën a sonal tamit parce que voilà ñooñu loolu la ñu ne de personnes vulnérables. maintenant am na ñeneen ñoo xam te ne ñu ñu am ay jàngoro surtout des pathologies ORL de la sphère ORL au niveau respiratoire. mooy fii si fu ñuy nooyee. Euh, genre yooyu noonu par exemple ñoo am ce qu'on appelle une rhinite allergique wala des sinusites ñooñu noon poussière bi da leen sonal lu bari mhm. wala ñoo xam ne dañoo dañoo dund ak asthme wala ce de appelle des BPCO mhm. bronchopneumopathie chronique obstructive mooy yooyu ay ay feebar yoo xam te ne ki yooyu mhm. laal poumon bi des maladies chroniques en comprendre voilà poussière bi mun na déclencher mun na déclencher benn par exemple crise d'asthme affaire bi su duggee ci biir ci biir poumon bi su duggee su soit au niveau des bronchioles ou au niveau des alvéoles lu ñu ne bronchioles valvéoles day entraîner benn réaction inflammatoire réaction inflammatoire boobu noonu mhm. arrangé wu ñu am maladie chronique comme asthme wala BPCO wala fii nii ci fii nii soit mu nit ki soj wala mu euh, mu am déclenché mooy sa rhinite allergique boobu noonu parce que euh, y a des allergènes ci kii bi si si bi en même temps. y' a beaucoup de am lu bëri lu fa nekk. mais quand mun nañu comprendre que au niveau nasal am na am na ay kii ay bon ce qu'on appelle des cils yoo xam ne dañuy filtrer poussière bi dañuy filtrer mais quand même y' a une grande partie qui qui rentre dans le poumon et loolu moo arrangé wu surtout. Euh, euh, waaw surtout le basage mooy xale yu ndaw yi. xale yu gën a ndaw ay disons mun naa ne à partir de cinq jëm suuf genre yooyu noonu wala les personnes âgées les personnes âgées pour si je m'aventure mun naa ne à cinquante ans su ko ci jëm kaw ñooñu yëpp mun nañu war nañu moytu. Mhm. poussière bi parce que mhm. déjà arrangé wu leen. Euh, ci yaram bi yaram bi dafa nekk loo xam ne ne day seexul loo lu bokkul si yaram bi léegi poussière bi su ñëwee day il faut mu xeex ko mu génnee ko léegi pour mu génnee ko ñaa ñoo xam ne ne ñoo ndaw yi seen mm-hmm. système immunitaire bi moo tagul bu baax wala ñu nekk ci kaw ñoo xam ne ne personne âgée ñooñu tamit seen système immunitaire bi dafa xaw a wàññeeku donc du coup euh, affaire da leen di sonal bu baax loolu moo tax war nañ bu baax. kay wala amoo benn feebar est-ce que tey poussière bi nga xamante ni nit ñi koy noyyi mënul leen ko indi. waaw bien sûr mun na ko indi mun na koy indi surtout au niveau pulmonaire pathologie pulmonaire mun na indi benn kii nii. Hmm. moo tax xam nga poussière bi soo ko soo soo ko inhaler ko wonee loolu noonu mooy entraîner benn réaction inflammatoire lu ma lay wax. Mhm. mooy miki ah, day am benn liquide bu ñuy produit bu ko ce qu'on appelle le mucus. Mhm. boobu noonu mooy génn. Mhm. moom ngay génnee loolu moo tax nit ki généralement day sëkkat da ngay gis muy sëkkat day sëkkat pour mu génnee ko da gis soit da koy won ou soit day soj. donc ce sont des affaires des yoo xam ne ne yu ñu noté si kii bi si poussière ya ah, généralement soit nit ki sëgg nit ki soj wala mu am métit fii nii métit si bu muy donc loolu yëpp poussière bi mun na ko mun na ko mun na ko war ñu gis ni euh, ñu ci bëri tamit ñoom duñu faral di takk masque est-ce takk masque bi tey mënul créer yenn feebar yi tamit parce que ñu ci bëri euh, même même ci corona bi sax xam na si ñoo xamante ne nangu buñ takk seen masque ñu koy gis poussière bi am na ci ñoo xamante ni da taseeg ñoom duñu takk seen masque mais est loolu tey euh, baax na ci seen santé ñoom ñi koy def. non baaxul baaxul. Mhm. baaxul d'ailleurs maa ngi commencé par lancer benn benn appel à tous les citoyens. dañu mhm. takk d'abord seen masque. dañu mhm. takk seen masque pour deux deux motifs euh, d'abord corona bi nii coronavirus mooy fii nii ba léegi. sa existe toujours e ça existe parmi nous am na ñeneen ñoo am corona. donc may may exhorter ku nekk na porter d'abord son masque ku nekk constaté na ni poussière bi dafa bëri dafa bëri fii nii si dëkk bi soo jëlee Sénégal même jusqu'à la Mauritanie yëpp mhm. am na poussière donc nit ñi dañoo nar a moytu ñu sol ñu soit ñu mhm. sol euh, masque continuellement wala ñu jël benn morceau ñu muur ko seen seen kanam seen seen bakkan yi comme mhm. ça au moins poussière bi du du am na si ñoo xamante ne si poussière bi dañu naan euh, du takk parce que damay fàtte euh, ci loolu nga xamante ni ñu ko ci def ñu ngi seen waaw ñooy créer seen bopp seen doomu feebar c' est c' est contradictoire normalement comme poussière am na dañoo nar a tekk euh, mhm. moytu ñu am beneen feebar surtout ñoo xam ne ne généralement ñoo am asthme te mhm. lu paradoxal mooy mhm. ñu am yeneen maladie yoo xam ne maladie pulmonaire chronique comme nu ma la ko waxee asthme yooyu noonu ñoom ñooy naan su ma takkee masque bi damay fat mais suñu bàyyee tamit poussière bi dugg ci biir poussière bi arrangé wu leen ñooñu donc lu ñu nar def soit takk masque daa commencé au moins ñu moytu kii wala su nekkee lu mun nekk nañu toog seen kër. Mhm. nañu toog seen kër ñooñu noonu man maay man su nekkee man damay wàññi képp koo xam ne koo am asthme ou mhm. BPCO. su à pareil à pareil moment su nekkee mën na toog këram mën toog këram. parce que lii arrangé wu ñu bëri. Mhm. su nekkee mënul takk masque na toog këram. Sénégalais tey xëy ne ko toogal sa kër mu créé la de. waaw mu créé ma parce que dépense bi. waaw <laughs> loolu moom loolu moom donc il faut il mu dem liggéey mais mais na takk masko ko. Mhm. na takk masque ko mu protéger parce que déjà corona si boppam ñooñu la gën a yàpp. bon su ma nee ñooñu la gën a la gën a sonal. surtout mag ñi tamit. voilà ak mag yi donc ñooñu noonu dañoo nar a moytu bu baax a baax a baax a baax. Mhm. bi ñu moytu poussière bi. Mhm. ñaari noonu il faut ñu moytu leen parce que day entraîner des lésions pulmonaires lésions yooyu noonu bon ñu ngi ne lésions pulmonaires. voilà noonu moo leen arrangé wul. dëgg la poussière que mën nañoo a def ça dépend déjà ça dépend de l'état de la personne. de l'état de la personne par exemple ñoo xam ne ñoo am allergie poussière bi tak suñ ko inhaler dañuy commencer day day am réaction soit dañuy dañuy sëkkat soit day dañuy soj soit comme sinusite bu ma lay wax noonu dañuy encombré wu voilà dañuy am yeneen kii maintenant am na ñeneen ñoo xam ne ne des personnes bon immunocompressées je dirais mais ñoo xam ne ne corruption résistant mhm. mu affaire bi mun na yàgg dans le temps et ça dépend aussi quantité bu ñuy inhaler quantité de poussière am na ñeneen xam te ni il beaucoup de poussière pour au moins mu am erreur comprendre donc ça dépend c'est c'est relatif mhm. ça, dépend de l'état de la personne ça dépend de la quantité et ainsi de suite donc est-ce que mën nañoo xam tey yan xeetu feebar la mën a créer moom poussière parce que dafa tey gis euh, koo xamante ni dafay génn du mu génn euh, su ñandoo ngay gis poussière bi dafay génnaat te dafay dafay xonk ci yaram bi euh, ah, te kooku nga xamante ni takkul masque tey est-ce que loolu mënul jàll ci ginnaaw créer yeneen feebar ak yan genre feebar la mën a créer. Hmm. loolu déjà mën na créer lu bëri. parce que déjà lu ma commencé ni yaa wax nga si si kii bi suy ñaandoo. Hmm. déjà mën na créer soj. première chose ça c'est le na créer soj maintenant comme nu ma la ko waxee yaram bi day seexlu poussière bi su duggee ci biir. il faut mu génne yaram bi il faut mu génne ko nit ki da ngay gis muy sëkkat maintenant su demee boo dépassé soit mu yem ça dépend aussi de la quantité mu yem au niveau des bronchioles am na lu muy nit ki day am problème nooy donc loolu ça généralement ce sont des lésions mais mun na entraîner ce qu'on appelle une détresse respiratoire mhm. maanaam nit ki day am problème nooy parce que su ñëwee soo amee réaction inflammatoire affaire day néewi donc du coup nit ki day am problème nooy yaa comprendre lool ce sont des choses yoo xam ne qui qui sont possibles. Mm-hmm. Euh, des des des effets possibles de la poussière. Mm-hmm. maintenant en de ça su ñëwee au niveau des alvéoles xam nga alvéoles yi les échanges yi foofu la ñuy def mooy euh, génne génne CO2 bi ak oxygène bi ainsi mm-hmm. donc mën na perturber les essences te su perturber les essences ça peut se répercuter sur l'organisme en tant que effet yi passe de la ça passe déjà de la physiopathologie. d'accord da ngay faral di gis sax si jamonoy euh, poussière gi ñëwee ñu ci bari dañuy dem jëndi euh, meew di ko naan te duñu dem seeti docteur est-ce que tey euh, loolu jotul tamit sénégalais yi bàyyiwaat ci xel. waaw man maay wax ñëpp ñoo xam ne ne mën nañ seeti docteur nañ dem seeti docteur. Mhm. voilà nañ dem seeti docteur soo amee yeneen loo xam ne ne li nga sentir si sa yaram bi. nga xam ni instant bii nii affaire doxul bu baax sama yaram bi santiroo ko bu baax demal gis benn docteur su nekkee mën nga ko def demal gis hôpital bu la gën a jege nga dem foofu noonu gars yi xoolal la docteur bi moo wax exactement lii ak lii ak lii ñi hmm. ci bëri ci ci ci jamono ji sax la ñuy la ñuy commencé am bu feebar feebar bi di génn mais dañuy bàyyi euh, ba mu trop tard ñu soog a dem ci ci docteur tey euh, ban message ngay lancé sénégalais yi ci loolu waaw loolu tamit lenn loo xam ne ne constaté nañ ko hmm. parce que généralement Euh, nit ñi dañuy ñëw en état grave en état grave malade bi déjà avancé na donc du coup li nga mën a def lu bëri doo ko mën a def parce que déjà maay maay wax ñëpp suñu système de santé c'est vrai que gars yi dañ koy tàggoo ne suñu médecine bi baax na mais on a de bons médecins mm-hmm. on a de mm-hmm. le problème en le système sanitaire am na dafa manqué ay infrastructure am na yu bëri yu manqué quoi mm-hmm. dafa manqué matériel loolu c'est la réalité c'est ce qu'il faut constater donc du coup nit ñi suñu teeloon ñëw au stade précoce de la maladie au moins lu bëri mun nañ ko def mais gars yi dañuy togg euh, ñu bëri dañuy togg seen kër. ñeneen ñi dañuy dem gis tradipraticiens du de de tradipraticiens de tous les coins. ba ñu sonn ñu soog a ñëw à l'hôpital en état léegi li nga li a def soit affaire day limité doo mën a def yu bëri nit ki nit ki dem gars yi la ne la yow defoo lii yow baaxoo su de suite su de suite donc loolu loo xam te ne ñoo ngi koy ñaxtudoo aussi mm-hmm. gars yi suñu nekkee mun nañu ñëw à l'hôpital à l'état précoce aussi mm-hmm. très tôt mm-hmm. loolu day day ñu bëri day arrangé médecin yi day arrangé nit ki dañ lay bàyyi rek nga sensibiliser waat euh, sénégalais yi euh, su ko defee rek nga daal di tàggoo euh, surtout nag poussière bi dafa bari lool te ñu ci takk seen ay masque comme ni ma la ko waxee woon sànq rek ñu bàyyi la nga sensibiliser sénégalais bu ko defee nga tàggoo ak mbokk internet yi jàmm ji info ok mbokk internet yi mhm. maa leen di nuyu mhm. kontaan naa si si émission mhm, ñaan sénégale bu nekk na takk maskom na takk maskom corona d'abord mooy fii nii corona mooy am ba léegi nit ñi ñooy dee si corona gars yi ñooy si hôpital yi ñooy si centre de traitement des épidémies li ñu naan CTE takk leen seen masque poussière bi bëri na poussière bi mooy fii nii gis ngeen ku nekk ku nekk gis na poussière bi donc loolu loo xam ne ne quelque chose qui est très évident euh, très évident takk leen seen masque surtout des personnes yoo xam ne ñoo am asthme ñoo am bronchopneumopathie chronique mooy BPCO mhm. les personnes âgées mooy xale yi tamit xale yi may waa may ay waa seen waajur yëpp nañu tee seen xale yi poussière mhm. bi dafa bëri maintenant su nekkee mën nañ seen toog seen kër tamit mhm. ñu toog seen kër mhm. nekkee mënuñu toog seen kër au moins takk leen masque maintenant poussière bi tamit même bët yi tamit day laal bët yi au moins su am ngeen lunette ngeen sol lunette ngeen protéger bët merci beaucoup merci beaucoup docteur Helmy Diatta maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la Euh, di la kontaane bu baax a baax am euh, mbégteeg bànneex bokk ak yow jotaay euh, yaakaar naa ni nag li nga xamante ni loolu la fi wax lépp amal na leen solo yéen ñiy seetaan jàmm ji info ñu leen di jaajëfal bu baax a baax comme ni ko docteur Elmé Diatta waxee rek takkaat leen seen ay masque même bu fekkee lunette am ngeen ko ngeen takk ko ngir poussière bi parce que mën na créer yeneen feebar ci seen yaram te loolu baaxul seen santé en plus ngeen di dem di seeti seen docteur yéen sénégalais ma leen di jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal le cadre Cheikhou Dramé